بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi nuyu mbokk jullit yépp ginnaaw bu ñu dégloo kaddu yooyu nga xam ni mooy kaddu sunu borom subhaanahu wa taala di ayat quraan yi nga xam ne donga yi nga xam ne jàng nañ ko fi léegi muy alxuraan ju neex li junju nag mooy woote bis bu màgg boo xam ne ñu ngi ko dëgmal muy bis boo xam ne bii mooy juróom-ñetteelu yoon ñu koy woote di daare Cheikh Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma ak daare mur bu Bandiouck ñu koy amal le 19 mais bii ñu jëm si woote woowu nag ci lañ woote alxuraan la woote bu yaatu ci biir loolu nag kàddu yi nga xamante ne si war nañ ko fee jël yëkkati ci pàcc ñi nga xam ne ñoo seq daara ji muy kilifa yi borom daara yi ak ñi fiy jàngale ak kilifa ak bi di sëñ Hamdi Ndiouk ak parents d'élèves yi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp war nañ jël ay kàddu ngir woote ci bis boobu ñu dëgmal muy le 19 mais incha allah ñu war ko amele fii ci Parcelles Assainies unité 11 ci terrain bi kon loolu moo waral euh, woote yi nga xam ne moom la ñuy def ñuy jiital ci kàddu yi rek sëriñ xam Hamdi Ndiouk mi nga xam ne mooy kilifa ak bi mu ñëw jox ay kàddoom ci woote bi. waaw bu ginnaaw bu noppee nag dinañ jox sëriñ Cheikh Ndiouk mi nga xam ne moom mooy jëwriñu daara yi Cheikh Ahmadou Mbacke Gaïndé Fatma ginnaaw bi sëriñ Malick Niass di jëwriñ ci daara yi sëriñ Mërub ba bu noppee ñu jox sëriñ Xaadim Ndiouk mi nga xam ne moom mooy jëwriñu jàngalekat yi nekk ci daara ji bu noppee ñu jox sëriñ moodu Guèye. moom it di jàngalekat ci daara ji bu noppee ñu jox kaddu parents d'élèves yi ki ko war a yëkkati mi ngi tudd sëriñ Assane Mbaye bu noppee ñu jox soxna Kiné Dia ci turu parents d'élèves yu jigéen ñi ak ndey daara yi mook soxna Ndey Guèye bu noppee ñu jox sëriñ Pape Ndiaye mi nga xam ne moom tamit ci or ñi nga xam ne ñooy organiser bis boobu di bisub conférence bi ci ci pàcc yu fasantikoo ci ay daayira ak ay association yoo xam ne ñoo jàpp ci bis boobu ci organisation bi moom it dina yëkkati ay kàddu kon noonu la programme bi tëddee bu noppee ñu ñaan te asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yéen mbokki jullit yi <coughs> mbokki daara ji eh, ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam eh, di leen sant te comme ni ma ko waxoon sànq lii nag dafa jëm ci bis bi nga xam ne ñu ngi koy woote muy conférence su daare Cheikh Amadou Mbacké Gaïndé ma ak daare Serigne Marouba Ndiouk ñu fas ko dina def le 19 mai fii ci terrain bi ñu ko daan defee ci unité 11 muy bis boo xam ne nag daa naka jekk daan am solo waaye rawatina ren ndax ñiñ ko tuddee la ñiñ ko tuddee sëñ Makhtar Kouma Ndiaye Seye ak Mame Mor Kouma Ndiaye Seye ñaar ñooñu euh, alxuraan buñ koy wax mën naa ne ñoo tax ñoom ñu ngi sa cosaano fu ñuy ndoj sëy ndoj sëy képp ku ñu wax ne borom xa ah, borom alxuraan la maanaam na jaar na fa Serigne Touba jaar na fa boo fa demee guy ga nga xam ne fa lañ fa Serigne Ba ma nga fa ba tey ji ak doj bu nga xam ne fa la fa la daan jàppe euh, muy Mame Makhtar Coumba Ndiaye Seye moom Alhaji Malick Sy Alhaji Malick Sy jaar na fa borom xam-xam yu ci euh, adduna bi yëpp jaar nañ fa muy dëkk bu mag a mag loola tax ñu tuddoo ko ñaar ñooñu Euh, gannaaw la itam daañu cee rendre hommage ñoo xam ne ku ñuy wax sëñ sëriñ Mandiog Ndiog kooku daaray kaamil bi nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa njëkk euh, ba mu koy sos ñaar fukk ak juróom-ñett ya nga xam ne ñoom la tànnoon ñu koy jàng ba léegi ca la bokkoon sëriñ Mandiog Ndiog ca la bokkoon ak ñeneen bu ñu vingt-huit personnes yoo xam ne yi chaque jour ñu jàng ñeenti kaamil loola ba ko sëriñ bi déglee mille neuf cent ba léegi ñu ngi koy def boo calculé ko ay ay ñanga ñanga bi junniy kaamil la ñu ngi koy jàng booba léegi kon kooku dañ ko ci rendre hommage ak ki nga xam ne mooy suñu maam ba tey du sëriñ Malick Sofi Ndiouk kooku moo jur sama baay kooku it Ndioukeen la dëkk daañu ci rembassé ku ñu sëñ Mor Diop kooku ñëpp xam nañ ko ndar la ne woon yor daar alxuraan daara jàng fa ba léegi moo doon jàngal mañes ñoo mañes mi ak ñeneen ak ñeneen ñu bari xam nañ ko kon loolu rek jar na bis boobu ñu gën koo fonk rawatina nag la nga xam ne yëpp na nañ ko caa def ak li mokkal nga xam ne seetaan ngeen ko fii 43 personnes yoo xam ni mokkal naar faatari loolu lu rëy a rëy la kon nag bis la boo xam ne bi daana am solo waaye rawatina doon nañ ko gën a fonk bu baax a baax ñu ngi woo ñëpp di woo góor ñi di woo jigéen di di woo mag ñi di woo ndaw ñi di sant ñëpp nañ ñëpp teel a ñëw muy bis boo xam la bis bu am solo la waaw ñu ngi sant ñëpp kon xam naa foofu laa yem ba bisimilah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 ñoo ngi am mbégte bu baax ci jataay bii nga xam ne jataayu lislaam la waaye jataay bii nag kenn ku ci ne xam na ne jataayu woote la ana ñan ñooy woote mooy waa daara Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma ànd koog daara yi maru Marouba Ndiouk ci bis bii nga xam ne moom lañ baaxoo def ren muy juróom ñetteel bi yoon boo xam ne mi ngi koy def ren nag sunu borom dogal ñu am ci ñeent fukki xale ak ñett yoo xam ne mokkal nañ téere bi bis boobu nag ñu ngi ciy woo mbooleem jullit yëpp ñu ngi leen ciy woo ndax la sunu borom waxoon ne yaa ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla buñ leen woowee ci loo xam ne maanaam yàlla akub yonenteem moo leen ci woo ni ngeen ci wuy ci kon nag ñu ngi ciy woo képp kuy wax ashhadu an illa allah ñu ngi la ci woo la sëriñ bi waxoon nit fala man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah kon képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah rek ñu ngi lay woo ci bis bii nga xam ne mooy bisub alquran di euh, fukki fan ak juróom ñeent ci mois bi muy mois de mai muy le 19 mai ñu ngi la ci woo incha allahu taala bis bii nag kenn ku ci ne xam ne am na invité d'honneur invité d'honneur boobu moom mooy Kër Dame Family ñoom ñoom lañ ko euh, ñoom ñoom ñee ñi nga xam ne ñoom ñooy invité d'honneur bi kon nag su ko defee ñi ngi woo mbollem kep ko xamne mi ngi deg sunu kaddu rek ñing lay wo di ci wo mbollem wa koñ bi nga xamne fi la daara ji nek ñing leen ci wo di ci wo wa jàkka ji nga xamne ñoy wa jàkka daru salam ñing leen ci wo bu baaxa baaxa baax ak di ci wo mbollem ñi nga xamne ño daan yor ci walu organisation bi ñoom ñing leen ci wo mel na kaddu yi dal kaddu wote la rek ñi ngi wo mbollem kuy wax ashhadu an la ilaha illa allah rek ñing lay wo ci bisbi assalamu alaykum wa rahmatullah a'udhu billahi min rajim بسم bismillahi الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ومن والاه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبوك جلدي مبوك mbokki يغنى بني سنتي bi ñu سبحانه وتعالى من خميني moom moo wax ci téeram bi ne yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla gëm bi si pénc saa yoo xamee ne woo nañ leen ci loo xam ne leen di dundal di dundal seen xol di dundal seeni ruux mooy na ngeen sa wuy te loolu dara jiituwu ci wooteb alquranul karim bi subhaanahu wa taala ci woote bi ñu ngi ciy jiital famille bi famille bi nag buñ ci jiitalee sunu maam alaaj jibi caam ak mboolem ñi nga xam ñu la ay rakam rek danañ yóbbaale ñëpp waaye tamit ci njiital sëriñ Euh, alxaaji Malick Ndiouk moom tam ñu ngi koy woo baax a baax waaye tamit di ñu woo fee nga xam mooy Njib Ñas ci njiital borom dëkk ba ci alxaaji Mortala Ñas ñu ngi koy woo ak mboolem rakam yëpp waaye tamit di woo waa bayti xaaxam ci njiital sëriñ Mahmoudan Diop ak mboolem ñi xam ñu ngi ci dëkk ba ñëpp waaye tamit sunu nijaay dafa nekk tamit muy Baye Cheikh Ndiaye ñu ngi ko ci woo ak mboolem mbokkam yëpp waaye tamit ñu dem ba Ndar tey sirul asir bu sëriñ Mor Diop comme ni ko sama nijaay waxee léegi rek ñoom am nañ cër ci bis bi ndax ñoom dañ leen ciy rendre ci sunu sëriñ boobu di sëriñ moor Diop Ndar yàlla na ko saa borom dolli yërëm waaye ñu ngi cee woo ki nga xam moo di xalifaam di sëriñ Ahmadul Xayri mi nga xam ne ci bopp daara ja ak mbooleem ñi nga xamee ne waa tey suransir noo ca mën a laale rek ñu ngi lay woo ci bis bi di sàkku seen teewaay waaye tamit sëñ daara yi nga xam ne ñooy suñuy nawle ñu séq ak ñoom jàmm ñu ne ci gox bi ak ci biti gox bi dem ba Kër Massar di woo sëñ Abdou Karim Ñang ak mbooleem ñi nga xam ne ay sëriñ daar lañ ñu ngi leen di woo ci bis bi wuñ kenn di woo chef de quartier unité 11 bi ak imma yi na ci koñ bi ñëpp bàyyiwuñ kenn ñu ngi leen kii di leen ci woo ñoom ñëpp waaye tamit di woo waajur xale yi yi nga xamee ne ñoom ñoo joxe seen i doom ci daara ji ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi di wax seen teewaay daal mbégte lee doon ci ñun lañ waroon a jiital muy di woo baax al imam sëriñ Modou Guèye mi nga xamee ne moom mooy imam ratib bu jumaay xaadimu rasul bu indi kon ñu ngi ko ciy woo di woo tamit maadaam naay bi sëriñ Abou Moussa ak mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ci jumaa ji rek bàyyiwuñ kenn waa daayira bi nga xam maanaam mooy daara tawfiix ñu ngi leen ciy woo ak mbooleem koy koo xam yaa ngi ci gox bi rek bis bi kañ la le 19 mai incha allah taala fii ci inte 11 ci terrain bi ñu ngi ñaanal yàlla borom subhanahu wa taala mu defal ñu ci tawfiix ak taysir wasalaamualeykum wa rahmatullah aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam tamaari asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu buñ gisee kàddu yi fii jàll nag day tegtale na mooy bisub daar ji xam ne dañ koy baaxoo di am chaque année muy conférence bi ñu amal si année 2024 bi fii ci Parcelles Assainies amoon si ñeent fukki xale ak ñett yu watt téere yàlla bi ñu war leen see sargal fii ci téere inte 11 bi kon ñu ngi ci woo mboolem jullit ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bépp fu waay nekk ci réew mi rek ñu ngi la ciy woo waaye di ci woo Serigne Modou Mbacke Ndiaye mi nga xam ne ne mi ngi fële Daaru Moxti ak waa jaar-jaaru daara ñu ngi leen si woo ñoom ñëpp mag ak góor jigéen mag ak ndaw waaye di ci woo tamit waa Touba gi nga xam ne fa lañ dëkk ci magasin Baye Dame ak suñ ah, mbokk am di jàmm yëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi kon nag bis baa ngi noonu le 19 mai la fii ci terrain unité 11 ñaan yàlla suñu borom mu yóbbu ñu sax jàmm san borom defal ñu si yu rëy rëy waaye ñu ngi si woo mboolem jullit ñëpp rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ba ñu sante yàlla jul ci yonent bi Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi ñu ngi nuyu ñëpp ci ku nekk si tur ak sant di yëkkati suñuy kàddu ci turu parents d'élèves yi nga xamante ni e, sëñ Ousmane Fall moo jiite di yëkkati ay kàddu ci turu parents yëpp di leen ziare di len balu ak di len yeugal bis bi nga xamanteni muy bis bu mag, bis bu tedd bi nga xamanteni ni ngi koy wajal muy le muy conférence annuelle bi nga xamanteni yag nañ ko def bobu ba legi ba tay ji inshallah rabbi ñu jëm ci muy le 19 mai euh, di kau wajal di ñaan mbokk taalibe yi ak mbokk yep, yëpp di len yeugal ni bis bi aksina na muy le 19 mai ñu ñaan ñëpp inshallah rabbi taxaway bi nga xamanteni mom la ci daan taxaw at yi nga xamanteni mo moo ko jiitu ñu fexé ba ñepp japp ci nga xamanteni moy bis bi ñi koy wote ñepp muy wote islam di ci jital gi eh, wote gi wo mbokk ñi nga xamanteni ñoo nek Touba ak ñi nga xamanteni ñoo nek ci réew mu yépp ak eh, sëriñ daara yépp leen xamal ni bis bi taxaw na bis bi jégé sina ñu koy waajal inshallah allah mu 19 di ko def fi ci parcel Assainies ci unité 11 li ci wote ñepp inshallah rabbi di wote tamit suñu mbokk yi nga xamanteni ñoy waa isbu tarhiya ci njital serigne yous Diop ñu leen xamal ni bis bi inshallah rabbi bis bu tedd la ñu lay wo ñepp nga xamanteni muy taxaway bi ci lepp nga xamanteni mo war ci bis bi ñu leen ci wo kon nak ñi ziar ñepp di balu ak ñepp di ñaan yalla ci yalla ag ci jam ak salam ci barke serigne Touba jeri jeuf billahi min rajim rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi waa adduna bi yëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax mbooleem képp koo xam ne yaa ngi seetaan si bii di alxadimiya rek noo ngi lay nuyu fa nga nekk di la siyaare bu baax a baax euh, olof nag mooy wax ne ku wal nguru tuddub dëkk maanaam li tax ñu dajee fi tey booba léegi nit ñaa ngi koy jàllale mooy woote bi nga xam ne si nii daaray sëriñ Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma moo ko woote du dara nag lu dut wooteb alxuraan la wooteb liggéeyub alxuraan daaray sëriñ ah-, Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma liggéey bi nga xam si ni moom la doon liggéey ci at mi yëpp dafa woote bis boo xam ne si ni muy le 19 mai 2024 dimanche incha allah ngir wane liggéey boobu ba tax na mu bëgg koo bokk ak mbokk julit jullit yëpp nag moo tax ñu leen cee woo sëriñ Moussa Ka nag woon bu leen di wootee bu leen di woote bu leen di woo bu leen di wootee dajaloo ngir caaxaan lu yàlla samp ko ko daana jaaxaan waaye nag woote bi lu jëm ci sunu borom la lu jëm ci alxuraan la istajibu lillahi wa lirrasul iza daakum lima yuhyikum ba tax na kon woote boobu ñu ngi ci jiital mbooleem kilifa diina yi di ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaqa Serigne Babacar Sy Mansour ak mbooleem xolafaaw yëpp rek fu waaye mën a nekk ñoo ngi lay woo kër diina yëpp ñoo ngi leen ci woo na leen bis bi seen la ndax ñoom ñoo fi nekkal alxuraan kon nag daare seen si Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma bu wootee la 19 ñoom bis boobu seen bis la kon ñoo leen ci woo bu baax a baax a baax waaye itam di ci teg sëriñ daare yi nga xam ne si ni ñoom lañ bokkal waar wi ñoom lañ bokkal liggéey bi nga xam ne si ni mm, tibee yaatu rek waaye ñun ñëpp ñoo bokk la ñuy def kon nag sëriñ daara yooyee fu waaye mën a nekk doon di fa yëngatu ak ci barab bu mënti nekk fu ab sëriñ daara mën a nekk noo ngi lay Euh, daare woote daare sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké Gaynde Fatma ñu ngi la ciy woo bu baax di ci woo ndonga daara yi itam képp ku mas a fer ijji rek ñu la ciy woo képp ku mas a wàcc képp ku mas a mokkal képp ku mas a jaar ci daara ji ak ku fi jaaragul ak foo mën a nekk rek woo nañ la ci bis boobu euh, di ci woo itam mboolem soppee alxuraan yëpp ndax am na ñoo xam ne si ni alxuraan rek la ñu noyee te dëgg nag te dëgg-dëgg nag ab jullit nag alxuraan rek moom la war di noyee ndax ab jullit alxuraan mooy ruuxam innamal muminuuna allazina iza zikira allahu wajilat qulubuhum ab jullit buñ ko woowee ci alxuraan warta yaafus warta tàyyel warta yox-yoxi dafa war a def bërit ndax wajilat xulubum alxuraan mooy yëngal xolub jullit beneen ba ci topp itam mooy ñoo ngi woo mbooleem ndayu daara yi am na ci ñoo xam ne si nii ay ndayu daara lañ yoo xam ne si nii fu góor taxaw dañ fay taxaw te alxuraan dana innal muslimina wal muslimaati man amila salihan min zakarin na unsee rawatina nag ndayu daara Gaynde Fatma ñoo ñom mention spéciale kon ñu ngi leen di woté don na sax seen bis la waye ci sama cadeau ak ci cadeau oustazi ñoo leen ci wo mboolem nday nday daara yi ñoo leen ci euh di wo itam mo ak bayu daara yi ndax bo nee góor it boo nee jigéen a kon bayu daara yi rawatina jëfkatu yu bax yi amna na ci ñoo xamne ay bonne volonté yo xamne seeni ay defkatu lu bax lañ fu alcorane woté rek buñ sañoon def fa seenu ñak kon nak alcorane ma ngay ñoo ñu loxo daara ji mi ngi tàllal ñooñu loxo ku mel ne sëñ Abdoulahi Dia xaadimul Quran sëriñ euh, seriñ sëriñ Seck c 3 ak mboolem ñi nga xam ne si ni ay liggéeykat lu baax lañ ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ñu ngi leen di tàllal loxo ci sunu bis bii nga xam ne si ni mooy bisub alxuraan bi ak alaaju sëñ sëñ Seex Sey waaw moom it ñu ngi koy woo bu baax a baax a baax a baax euh, di woo presse bi sit internet yi média yi tele yi ndax alxuraan suñ borom dafa wax ne ne lu baax dañ ko war di ko siiwal lu baax dañ ko war a siiwal in tubdu sadaqaati fa ni'ammaa hiya wa in tuxfuuhaa wa tu'tuuhaa fa huwa xayrun lakum maanaam borom bi dafa wax ne na ab sarax boo ko nëbbee baax na waaye nag bu boo ko fësalee ba ñëpp mën cee jot ta def ko te yàlla rek tax loolu nag mooy li kon ba tax na kon presse bi nga xam ne si ni ñoom ñooy wasaare xibaar yi di jàllale liggéeyu nit ñi ci seen roq ya nekk ñoon presse boobu ñu ngi leen di woo ci sunu bis nga xam ne si nii mooy bisub daare sëñ si Ahmadou Mbacké Gaïndé Fatma kon raison yi fu waaye a nekk rek Dakar ak Louga ak Ndar ak fu waaye mën a nekk ak fu daara mën a nekk rek woo nañ la ci sunu bis bii nga xam na si ni ñu ngi ko jàpp dimanche le 19 mai 2024 incha allah fii ci Parcelles Assainies unité 11 ci terrain bi ñu ngi ci woo ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu aouzu billahi samil alim min asheytaani na ani rajim bismillahi rahmani rahim اللهم صل على سيدنا محمد سيد البصر وشفيع المشفع في المحشر ginnaaw bañ sante yàlla julli ci yenent bi ñu ngi sëlmal ci moom Musaa sallallahu alayhi wa sallam dellu di woote bis boo xam ni yàgg nañ koy woote muy bisu alxuraanu karim nekk huitième édition di daaray sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma dëppoo ci ak daaray Mamadou Ba ñooy woote bisu tari alxuraan di ci woo julliti yàlla yëpp rawatina sëriñ daara yi nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey bi teg ko ci loxo sëñ Abdou Karim Niang waaye di mboole mbooleem xulafaaw yi nekk ci biir parcelle di ci jiital daayira tawféex ak daayira isbu tarxee daaru xuddus di ci woo mbooleem association tamit di ci woo parcelle 1 ba 26 waaye ni ko si mbokk mi waxee sànq ñu ngi ci dolli di ci mbooleem nday daara yi rawatina nday daara yi sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ci njiital soxna Alima ak soxna Kinna Dia si seen taxawaay ak ci seen farlu ñu ngi leen di gën a soññ waaye di soññ suñu mbokk yi ñu nekk ci ginnaaw nga xam ni ñooy ressortissants daaray sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ti njiital sëriñ fàllu Sey ñoo am beneen taxawaay boo xam ne bu rafet la ñoom ñi nga xam ne dañoo génne ci daara ji wëlbatikuwaat defaraat beneen association taxaw ngir jàpp ci liggéey daara ji ñoom tamit ñu ngi leen ciy woo ñu xam ne bis bi dañ cee am cër ñu bàyyi ci xel mbooleem xulafaaw yi ci nekk rek ni ko sëñ Malick Niass waaye ñu ngi leen ciy woo di xam ni bis bi suñu bis la ku ci teew tamit sa bopp nga ci teewal ni ko sëñ Cheikh waxee sànq rek woote bi yàlla la comme que alxuraan moo ne yaa ayyuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirasuli ida daakum lima yuxiikum fépp foo leen dégg woote yàlla na ngeen dem wuy ji ngir sàkku fa yiw ak barke te yaakaar naa yiw ak barke nit mënu koo am fenn fudul alxuraan ak jaamu yàlla kon ñu ngi ciy woo ñëpp di wax ne bis bii nag dafa nekk bis boo xam ne bu mucc ayib la ndax daan nañ ko woote saa su nekk waaye bii dafa mucc ayib lool ñu am 43 personnes ñoo xam ne ñoo mokkal alxuraan mu doon résultat boo xam ne yombul doon résultat boo xam ne yombul nga koy gis fi fii ñu nekkee nii kon ñu ngi ciy soññi ñëpp di jaajëfal ñi nga xam ni ñoo def jëf ju mel nii di ñaan sin borom gën leen a kartanal te saa su nekk rek ñëwee gën a faw ko ñu ngi jégalu bu baax a baax di ci woo mboolem jullit wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah. yéen mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaare su ngeen gisee suñu jotaay bii ak suñu jotaay bi eh, jotaayu woote la woote bi nag woote lislaam la di woote bisu arxuraan di bisu daaray gaynde Fatma ak bisu eh, sëñ muru Ba waaw moom la ñuy woote tey jii woote bi nag dañ ci ñun fi ñuy féete mooy dañ ci woo ndey daara yi di won day daara yépp di leen soññ donte yéen ci woon sax waaye ñu leen ciy soññ bu baax a baax a baax a baax ci bisu alxuraan bi nga xamante ni xale yi sunu ginnaaw ñoo mokkal muy le 19 mai ci terrain unité 11 bi ñu ngi leen ciy woo baax yéen day daara yi ci biir loolu nag ñu ngi ciy woo it famille bi waa daayira famille bi di teg wote bi ci loxo Yacine Seye di leen woo ñoom ñëpp ci bis bi di ci wo bépp julli dal buy wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah di len wo bax ci bis bi di bëgg ngeen teel ñew rek ah, teel da jël place teel eh, ñew dal ci yëf yi ci ci conférence bi foofu rek dañuy wàccee sunu kàddu ba ben incha allah bismillah alaykum wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi ربي لي wa yassir لي wax waxlul uqdatan min lisaani yahfaw xawli ñi ngi nuyu mbokki julit yëpp mbokki taalibe yi di ci jiital saahidul fadila sëriñ Touba Cheikh Salim Mbacke suñu borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem barke alxuraan waaye ñi ngi nuyu sëriñ Muntaxa Mbacke eh, suñu wasila yàlla guddal fanam lool te wéral ko barke alxuraan eh, ñi ngi woote ci turu eh, ndeyi daara Euh, muy soxna Alima ak soxna yëpp waaye di ci ziyaare Serigne Malick Niass ak Serigne Cheikh ak sëñ Ousmane di leen yëgal bis bu mag boobu nga xamante ni moom la ñuy def chaque année muy bisu alxuraan di ci woo mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yi di ci woo ahlu alxuraan bépp sëriñ daara yi ak kilifa diine kilifa aada yi euh, mboolem képp koo xamante ne ni daal alxuraan ñor na la l'islam ñor na la ñi ngi la ci woo ci bis bu mag boobu di 19 mai ci parcelle euh, unité 11 ci terrain bu mag bi ñi ngi ci woo ñëpp nag di ci woo Serigne Fallou Galas borom koki ñi ngi ko ci woo bu baax baax di ci woo Serigne Mbaye Thiam transitaire ñi ngi koy woo bu baax di woo Serigne Fallou transitaire mom tamit ñi ngi ko ciy woo bu baax baax waaye Makumba borom euh, kii Kër Massar moom it transitaire ñu ngi ko ciy woo bu baax a baax suñu magi bopp jooju ndax euh, kooku moom macha allah euh, Serigne Issa Ndiaye ñu ngi ko ciy woo moom it bu baax a baax. ñi ngi ciy woo daal képp koo xamante ne nii Serigne Daara nga te alxuraan ñor na la ñu ngi la ciy woo bu baax waaye di ci woo ndey Daara yëpp nag ñu ngi ciy woo soxna yëpp yëpp yëpp yëpp macha allah. képp koo xamante ne nii daal diine ñor na la islaam ñor na la bu ci xee ba def sëb dërëm ndax lépp loo ci def suñu borom dina la ko dencal ëllëg yowmal xiyaam nga am ci fay gu rëy rëy kon nag ñu ngi leen ciy woo bu baax a baax a baax a baax a baax asalaamaaleykum wa